li si yéen a kaay ak njiitu réew Macky ca Casamance ak loxob jàmm bi mu tàllal fipp MFDC yi ngir jàmm ju sax ca Casamance moo ngi si yéen a kaay yu bëri yu nu xëyandool bokk na si ñoom la témoin mi bind si xëtam mu njëkk ni njiitu réew Macky na loxo waa MFDC démbul woon te ba ñuy def lancement yu travaux yu jëm ci suqali rive gauche bu Pakaaw moom Macky Sall si les échos di yi ngir ñu wér ngànnaay ngir jàmm ju sax ca Casamance pare na ngir gunge leen ci lépp lu ñu nekk ngir suqali Casamance Vox Populaire delluwaat si kàddu njiitu réew Macky foofee taxaw ci luy suqali Casamance ak jàmm ju sax jàkk waa jàmm gën troisième mandat ak ñiy xeex troisième mandat bu njiitu réew Macky Sall duñu si wét li tax moo ngi si enquête bi yéenekaay bi moo ngi ñuy xamal léegi ni coow troisième candidature bu njiitu réew Macky Sall rek ci réewum Sénégal dem na ba biti réew enquête yéenekaay ni ñu intelligence magazine keroog ba Emmanuel Macron waxtaan ak président njiitu réew bu Sénégal Macky Sall la sàkku nag si moom njiitu réew mu teg ñetteelu candidature ci suuf le quotidien ñu du rek moo sàkk si njiitu réew Macky mu tekk waxi troisième candidature ci suuf ni ay waa Amérique tamit lu ni mel la ñu sàkk si njiitu réew le la ko journal bi tuddee Soleil national moom bind si xëtam wu njëkk ni waa Goudomp gis nañ seen bopp ci investissement yenuy def foofee ci Sédhiou ngir suqali gox ba ñu jógee Sédhiou wax ci leen ak sunum réew di Sénégal feebaru ngaana nag ma nga fay wéy di lëmbe la ko ti jéemooñ ko xibaar ba di ci dolli ci xëtam wu njëkk ni beneen waa gi ñëwaa na te mi ngi law ndax ci atum 2022 rek lu jot nañu recensé si lu tolloog téeméer ak juróom fukki ñeent te 54 cas de Ghana cas de yi am si réew jëm si xale yu góor yu ndaw yi nag l'observateur xëy na si defu gësu moo ngi si wax ca gëstu ba lu doy waar ñu jeexal ak yéen cas bi l'observateur di ñu xibaar rek ne lu doy waar moo am ci ab waay bu ñu joxoon ay koppar ngir mu tabax ñeent si ay jàkka ci biir Sénégal waaja nag daal jël xaalis ba ni ko dëndeex daal di lekk ni mes ni mentañ boobee ba tey kenn gisu ko waaye li ci wér mooy way takk dari jàpp nañ ko teg ko loxo ba yóbbu ko kaso jërë ngeen jëf yenn jàmm